من نبي ولا رسول إلا خلق من نور طلعت البهية فهو يقنع برب نسك ولا أين بنبي ولا لا لا لا لا بنبي ولا رسول الله خلق من نوره كالأت البهية فهو أشد وفر من لا لا سكن ولا أصبر أيوه moom Seydina Muhammad Seydina Muhammad Seydina Muhammad weddoo badru munawwar moom Seydina Muhammad Seydina Muhammad yonent bi gàttul yaram wa daara tax ee eh, guddul dami fataxee daaw Sidina Muhammad suy mooñ génn ga di melax Mustafa xunkul ba mel ni xewar Seydina Muhammad ñu lu leexul ba mel ni meew mooy kilifa yi géew mu teew yeneen ci bi bu ma sant reetaan leen di dina ci gilin nga moom la yàlla séddale isaa takallama xaraja noor min dali sama lu lu na bi tànkam yo nooy ni ay wëtte cëram ma dokku ko seer xam ne la la mi na ci lu borom ci moom la far moom Seydina Mamat sikki mu jëkk waa rafet yenent bi faasam ya taaroola sa jotam na may adalaaw la tam ñenam ya ak seeni kawar moom Seydina Mamat na yàlla sàkke aw dënnam yaatal ko sol ca ay fekk nee taaw mbaka we sëgg xaatimam ku xool xaatim fa te afal moom Seydina Muhammad nabi baaraamam sew yeenam sewul nosul barul te dodomul sëgg si di loo jël rasul duwal ku doroo taaw mbooloo mi fi toog man waat naa ni maa fi gën a bëgg Seydina Muhammad kon bu amee keneen na jóg nga xaw tani man la Sayyidina Muhammad soxna Amina yow sa turandoo Amina tay yaay yeneen xaasu may maama xanaa xamoon yeneen tibi bu ma salliree la dëgg na tege mi do moom la yàlla séddale jaam yi yax ya daanooy Sayyidina Muhammad te bukar yu weex te du ma yaatoo su ma juum ndax yàlla ko jam moom Seydina Bamba gàttul ba dégg naa minna ma day ñaaw seen soppe boobe njool wi bani sulet minna ma day ñaaw wala yakunu taama wala yakunu kasama qad xatumu man sama li muntali haada sidina muhammad nabi bu ma santi dox wen mastan naaw tatti boom nabi bu ma saana dox nii ya do di ànd ak moom moom Seydina Muhammad bu masaan di dox nabi daawal gës la le takarama googe le di ca janna man xalfahu yara kama yara aman kama mu aynahu wal xamla أسى محدم وهو سابعا ولد نقطون إليه تابعه تخريفه ci gën a bëgg yonent bi boo waxee baax xam ngeen yàlla na siyaat si na ay yeneen ci bi taxrifo mbaa xam ngeen yeneen taxrifo yakabo inda yakabo ay ay tay sana la takabo nabi bu masana war fas ay mbaam mbaam war gele mbaam war mbaam ba berkel le du dem Allah ba ngir tegi na yene nabi dogaayam mo gën a teg ci bépp dogaayam صلى علينا أيها النبي am nañu bëgg suuf dama suuf dama yéen seddale maa ngi tuub rek bu ngeen mën a ñaar rek baax na mu bañ a xat ndax géew bi dafa xat te daanaka léegi waxtu xat bi jot na ko ñaar ñu rek seddale ñu si des dem toog maa leen koy ñaan ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam timi mu ballee ku kulle nga jàpp yàlla timi Mustafa mooy yaasin xayrul baraaya xaadul umam mi moom Seydina Muhammad xanaa xamoo ni yonent bi Abdalaa yaay baayam Aminata yaayam ndey ja Xurays na baay ba yaarame te du mënu ko ñaaw bu ko ñaawal ñaaw Muhammadu Nuur Abdalaa isi bata simin wa Abdul Manaaf maa ko si imi kilaaba murat ونوي وخالد ببن وفين ومالنا ذلك المتاع كنا dinaa nag sax mu moo ñaama ngi siyaar sama xarit bi waxu say matuma mudrikatun ilaa sama mu di dem Sëriñ Fallu waaw ak na mi sarama adnan man idaay soo adnan parce que waxat jaa min al alami kooku mooy yeneen

yàlla na ngeen fi yàgg lool di yàgg tantal Seydina Muhammad kooku ci amagul yàlla na la yàlla may sët bu tudd Seydina Muhammad mbaa nga am na bu tudd Mustafa taaw mbaa mbaa mbaa mbaa mbaa mbaa mbaa mbaa mbaa mbaa mbaa mbaa mbaa mbaa ياسين يدخ بلاي بلاد بنا بدل بدل يخل يخلصن لي بدل بدل ينتهي amagul ci yéen yàlla na la yàlla may doom bu boore bésu be ko Seydina Muhammad ana soppeeku yeneen ku bëgg naa di yow jébal taxaw ku sopp naa di yow jébal yëngu Seydina Muhammad tapi jar na yëngu Seydina Muhammad yow la di bëgg da so Fatima Fatima Zainab Thank you. Sumya, ومكانا غير koyi da fadau ba fananu kayan burin ana son bayyana sun sayidina muhammad yau je gani yau kuma gana gani yau je gani lahu sun sayidina muhammad damaa bëgg bu ci bëgg a dem saa yëngu bi ñu taxaw yéen daal ca kaw yéen jóg leen taxaw jóg leen taxaw jóg leen ñu yëngu ku ci jóg taxaw ku ci jóg taxaw yàlla ko see tànk mi ku ci jóg taxaw yàlla nga dajee ku ci jóg taxaw yàlla